Père Lamine Diack dañ ko jàpp en otage foofu bon du ma utiliser terme boobu mais dama ne jaay doole da ci am parce que ay yoo xam ne tegul fenn ay sosi la la preuve waxuñ fi woon ne Pape Massata Diack dafa ubbi compte offshore Singapour waaw yoo xam ne daf ci jot trois millions quatre cent cinquante mille euros mais justice française du ko wax def nañ commission rogatoire foofa dara nekku fa waxi kes ay sosi voilà moo tax ma ne la dafa fa xew. bu xewoon fi soubassement histoire bi yëpp lan la. waaw xam nga euh, ñoom au départ dañu ne problème mu dopage Russie. soo gëstoo ci internet da nga gis ne parquet financier xam nga lu ma waxoon. Hmm. dafa ne 23 athlètes russe la woon defal recherche bi xam nga fu mu mujj. Hmm. ci benn ne dañoo ger ay nit 23 la ñu waxoon léegi ñu ne kenn la mais boo ne dañoo ger nit da ngay indi firnde yi. Hmm. ñoom ci la ñu toll soupçon lañ toll. xam nga soupçon bokkul ak yaa ko def indil firnde yi athlète russe boobu ñuy wax masata waxtu wañ wax ne gis nañ ku ñuul ku fa ñëw d'après ñoom li ñuy wax ci dossier bi masata joxe na passeport am fekk ko Russie demu fa demu fa jegewu fa kon ñoom ci loolu la sukkandiku mais la ca biir nag la ca biir mooy jéem a doyadil jéem a ñàkkal fayda ay liggéeyu doomu Sénégal ay liggéeyu doom yu ñuul nit ku ñuul parce que ñoom léeg-léeg ci seen gis-gis dañu jàpp ne yenn taxawaay nit ku ñuul war ko am te saay bu ko amee rek da gis toujours ñu jëm ko sobental te du tey la commencé fépp fu nit ku ñuul yor institution de soo seetloo rek balaa mandaam di jeex ubu jeexee ñu indi ci luñ koy jéem a sobental ma won la euh, ñàkk yenu maanaa wax ji amaana nañ moo def enquête bi mooy agence mondiale antidopage agence mondiale antidopage boo demee seen statut xam nga luy seen warugar xool lan mooy dopage mais ku mës a gis ab agence mondiale anti dopage di def enquête ci ay contrat de sponsoring ak droit de télé loolu tappale bi loolu lu ciy seen yoon droit de télé ak droit de sponsoring lu ciy seen yoon xeetu tappalee ngoog ma joxal la beneen mbiru tappale boo xoolee organigramme IAF dafa am président. Mhm. am vice président chargé du marketing. et de la promotion xet mul digal am secrétaire général am directeur du marketing doon am consultant pour des questions de principe rigueur su nekkee ne dañ ne Massata en tant que consultant IAF la mu def yenewul maanaam ça veut dire le directeur marketing am na ci responsabilité le secrétaire général am na ci responsabilité le vice président chargé du marketing et la promotion am na ci responsabilité parce que moom bu defee liggéeyam def rapport yónnee ko ñu war ko fay day jaar ci directeur marketing mu valider ko mu yéeg ci secrétaire général mu valider ko mu yéeg ci vice président xel mu digal chargé du marketing et de la promotion mu kon kan la ñuy fontoo est-ce que ñeent ñooñu ñëpp dégg nga kuñ ci topp premier mbir kan la ñuy fontoo tubaab bi ñaar contrat marketing ak droit de télé yi mu am ak densu AMS ñi nga xam ne ñoo am droit marketing télévision IAF nga xam ne bañ koy am bu yàgg la ba tey ñu ngi ko kon di am mais ñooñu ñoo signé ak contrat Masata ne ñun suñu droit yi nga xam ne ñoo ko jënd ci IAF. jox nañ la signé nañ contrat ak yow le 14 mars 2010 pour nga dem ci pays émergent uti ay clients soo amee client yaa moom sàngam yaa moom sàngam mu liggéey jox mos nga dégg densu AMS porte plainte Massata ci xaalis ba ñaar est-ce que dégg nga IAAF porte plainte densu ak AMS kon xaalis ba nga xam ne Massata mu ngi ko signé contrat ak densu ak AMS ñu fay ko ca lan moo ci yoon IAAF su IAAF jàppee ne yoonam la lu ko tere moom mu porte plainte densu ak AMS mooy gis nga jaxase li ñuy wax teguwul fen jaay jaay doole kañ ngeen di delluwaat kon procès. en principe le 27 moom danañ daje def li ñuy wax mise en état 27 avril. pour xool ginnaaw bi procureur ne nañ delloo dossier bi pour ñu jagalaat ko fan lañ ci toll est-ce que nañ ko mën a layoo entre le trois et le 22 juin si ginnaaw le vingt 27 boobu la ñuy xam mais on a une date indicative entre le trois et le 22 mais dossier bi tappale tappale da bari te li ma lay wax ay fee la parce que fi may wax am na ñu koy déglu. absolument waaw absolument alors euh, ñu ñëw ci question de bonne gouvernance <laughs> rapport yi génn ak corps de contrôle yi ban jàngat nga ci def fi mu nekk nii. ñaari jàngat laa ci am xam nga démocratie réew état de droit crédibilité ay corps de contrôle ci li koy may doole la bokk. Mm-hmm. su ma gisee Sénégal nag du léegi nag la commencé ah commencé na mu bëgg a yàgg depuis les années 2000 parce que corps de contrôle yi. ci période boobu la gën a développé mm-hmm. mais ñu ngi seetlu depuis 2000 corps de contrôle yi saa yi bu ñu defee seen liggéey ba pare teg ko ñenn ñoo xam ne ndomb tànk nguur lañ yor ca suba sa ñooy yëkkati seen kaddu di doyadil liggéeyu ñoo corps de contrôle à ah, commencer par le président de la république di doyadil seen liggéey loolu mënuma ko rafetlu parce que corps de contrôle yi c'est des fonctionnaires d'élite. Mm-hmm, mm-hmm. xam man dama jàng mais damay nangu ku ne li la yàlla dogal defal ci yow. c'est une élite c'est une surélite même boo demee Cour des comptes par exemple c'est des magistrats hauts magistrats non c'est des non c'est des sortants de l'ENA des administrateurs civils mhm. trésor impôts ñoo def concours bi nekk fonctionnaire hiérarchie A ba pare def concours bi ñi nekk ay magistrats de l'ordre judiciaire mhm. ba pare def concours bi donc xam nga ne c'est une super élite kon ñooñu nga xam ne réew mi ñoo leen yor former leen jël ay jumtukaay jox leen ñuy taaru réew mi ci fànn wa ñu nekk ñoom taar lañ ci réew mi suñu jëlee càmbar joxe seen xalaat ba pare ay ñeneen ñoo xam ne dañu am ndombo tànk ci réew mi mu commencé maire directeur société ba ci kaw ak ku mënti doon nga sobental soo fa loolu dama koy ñaawul parce que day fragiliser nos institutions te baaxul ci démocratie baaxul ci état droit. Mm-hmm. Mm-hmm. deuxième chose beneen jàngat bi moo di ne yooyu bu ñu defee il faut que askan aussi comprendre ne waxu saay boo déggee dysfonctionnement ou manquement. que infraction pénale la déedéet un rapport il faut mu leer oui bien sûr très bien c'est que ñoom bu ñu càmbaree dañuy def ay recommandations yoo xam ne dafa jëm sur les règles budgétaires ou les procédures mm-hmm. budgétaires mën nañ ci def ay recommandations mën na am aussi faute de gestion faute de gestion bokkul ak faute pénale c'est-à-dire mm-hmm. que règles yi nii la waroon tëddee mais respecté woo règles yi mais xaalis ba yóbbu nga ko ca kuréel ga tax mu war a nekk mooy dafa wax sa poos. Mhm. léeg nag aussi mu am troisième cas ñu ne da jël xaalis def sa poos donte un pour cent la bu amee dossier yi dañ ko war a yóbbu ci yoon parce que bu ñu doon yóbbu dossier ci yoon ñiy lappi lappi di calli calli di wax fii la war a wax. duñ ko dañ koy xaar mais mais ah, mais may ma ma yëgale mhm. waaw dama kon ñiy wax argument ya am. nañ ko yóbbu dañ koy denc yóbbu ko ci yoon mais xam nañ ne du dem ci yoon moo tax ku ne. wala bu demee ci yoon tamit yoon. non non yoon demul mooy demul ci yoon dem ci yoon mooy ñu juger la. mooy demul ci yoon dama ne ñiy wax ñu ci ëpp su nekkoon ne xam nañ ne dossier yi dañ leen tuumal loo xam ne faute pénale la day dem ci yoon mu wóor leen dañ leen di àtte seen argument ñu ko wax dañ koy denc moo tax li ma jàpp mooy te muy dëgëral institution yi di dëgëral suñu démocratie di dëgëral suñu état de droit mooy nañu changer texte yi. c'est-à-dire d'accord d'accord na corps de contrôle yëpp. chef de l'État c'est le patron de l'exécutif ñu jox ko rapport yi mais ñu def ci texte yi ne donte njiitu réew mi jot na ko de droit rapport yëpp su amee connotation pénale ci ay aspect dafay dem directement au niveau de la justice déposé na 21 rapports waaw may ma ma yeggali euh, ci réforme waaw maa ngi yegg dama ne na dem et le parquet ñu changé texte bi dootul amate li ñuy wax opportunité de poursuite opportunité de poursuite mooy donte am na luy niroog jalgati yoon am naa sañ-sañu bañ a topp mu am système de légalité de poursuite sur les questions de gouvernance financière et économique. ñu changé texte yi. merci loolu mooy indi ku ne xam sa place moo di ne bu borom bu njiitu réew mi jotee rapport yi ba pare moom dañ koy yónnee parquet te parquet dafa am obligation enrôler ko tout en respectant nag deux principes le principe des droits de la défense. Mm-hmm. et le principe de la présomption d'innocence. c'est que loolu tant que defuñu ko coow du jóg ci réew mi tuumalati ne da nga luubal àllu askan wi nañu yóbbu dossier bi tribunal la ngay wax ca mbedd ma nga dem wax ji ko ca tribunal ba su nee defoo dara ñu la defoo dara nga ñibbi soo defee ñu ne la yaa def looluy dindi coow li te loolu nag tant que defuñu ko am na mbir yu bëri mbiru ay corruption question yu bëri Sénégal dafay ko ne di sagne ah, parce que loolu mooy rafetal loolu mooy rafetal sunu démocratie loolu mooy dooleel suñu état de loolu nañ ci bàyyi xel te nag dafa sooxe ci réew mi te aujourd'hui boo xoolee ci réewu Sénégal depuis les années 2000 li gën a sooxee c'est les problèmes de gouvernance économique et financière. et la loolu waaw waaw non mais surtout ça surtout ça d'abord les question de gouvernance économique dafa sooxe donc ñi fi nekk ou di war a ñëw ëllëg nañu bàyyi xel ci loolu. Mm-hmm. réew bu ndoolee bu mel ni Sénégal dërëmam kenn waru ko fooye justice léeg-léeg mu am jafe-jafe ko mais nit ñi fi ñu jàppe jafe-jafe justice ne foofa la gën a tare du foofa. fan la xam nga Sénégal lu ñuy jàppe euh, ne jafe-jafe si fa la gën a tare. Mm. lu ca am la mais du foofa kese. am na lu ko gën a ah, am solo. lan la xam nga lu ñuy wax moo gën a sooxeel justice. Mhm. boo waxee ñu ne ah, manque d'indépendance en raison du pouvoir exécutif déet c'est pas le premier facteur le premier la première menace la première menace sur l'indépendance de la justice au Sénégal c'est pas l'exécutif c'est pas ça la première menace sur l'indépendance de la justice c'est le pouvoir de l'argent la seconde menace c'est les groupes de pression maintenant nag peut-être troisièmement Mhm. pouvoir exécutif door a mhm. moo tax d'ailleurs ma d'accord ne pour gën a dooleel indépendance de la justice parce que les magistrats du siège kenn du werante ne am nañ indépendance fonctionnelle am nañ ko nag bu la yoon joxe dara da koy jël téye ko. am nañ ci fulla ak fayda. am nañ indépendance fonctionnelle. dañ mhm. koy téye maintenant nag indépendance du doy dañ koy yokk. moo tax ma d'accord ne war nañ définir aat renforcer waat ay concept de service renforcer ay notion intérim loolu yëpp pour gën a dooleel suñu justice d'accord naa aussi. te wax naa ko waxaat ko que njiitu réew mi génn conseil supérieur la justice ne serait-ce pour des questions symboliques. parce que boo nee Sénégal le pouvoir judiciaire indépendant chef de l'exécutif bokk ca symboliquement ça pose problème te ab jàpp naa ne réew mu mel ni Sénégal li fi nekk ci priorité njiitu réew mi am na leen lu muy defee kon moom mën na génn. bàyyi fa ministère ministre de la justice ñu yokk nag composition bi parce que la justice question citoyenne. dugal ci. presse bi seen benn élément université barreau bi. Euh, association patronale société civile. mais nag magistrat yi ñu fal gën faa bari ba pare pouvoir de nomination bi ñoom ñu am ko plus aussi le ministre de la justice après nag ñuy arbitrer à l'interne yooyu ak yeneen façon buñ ko defee dana gën a dooleel justice bi juge de la liberté et des détentions parce que mënoo nekk yow procureur di topp ba pare di yóbbu kaso déedéet kooku état de droit bu moderne nangootu ko dafa xewi ci jamono. mënoon nañ ko nangu mais yi na procureur cëram mooy bu ñu jàppee ni nit dafa def njomme dañ ko tuumal jal ko mu def enquete jàpp ko ne muy ngi waa ji su buggee neen ñu tëj ko kaso mu ne man dama bugg ñu téye ko téye négandi mais mais su boobaa day am juge des libertés la détention kooku xool ndax li mu def jar nañu yóbbu ko kaso parce que mënoo jël Sénégal presque genn wàll ñu ne ci kaso bi yëpp détention provisoire lañ nekk quarante et pour cent des détenus sénégalais sont en détention provisoire loolu dafa jéggi dayo feesal foofu inutilement jël xaalis askan wi leen dundal te ku ne am ma foo dëkk doo daw doo génn donc war nañ xoolaat doxalin boobu. dernière question bi ma lay posé mooy est-ce que foog nga ne criminalisation du viol dina régler problème bi. mën na bañ a régler problème mais am na solo d'ailleurs man loolu dama ci dama koy rafetlu. Mhm. dama koy rafetlu di féliciter nguuru Sénégal ci loolu parce que. les questions de viol et de criminalisation dafa demoon ba commencé jéggi dayoo kon nag jaadu na nguur gi affirmer sa volonté politique te loolu dañ leen ciy féliciter foofu lañ leen di xaar maintenant tekkiwul ne nag buñ ko criminaliser dana nekk une solution totale mais pour man début de solution la parce que dana tax képp kuy def yenn ñaawteef nga xam ne mën nañ ma tëj atu kasa yoo xam ne mën naa fa jaar man dootuma baaxati hmm. kon am na un effet dissuasif maintenant nag kenn mënul wax ne dina régler définitivement problème amul benn réforme judiciaire le traitement judiciaire ne règle définitivement aucune question de société le traitement judiciaire sanctionne et alerte mais du régler définitivement mais forcément na am jeexital bu baax te nag réew ku ko bëgg a defar da ngay aar jigéen aar xale yi parce que boo aaree jigéen ña xale yi day am effet multiplicateur kon moo tax may rafetlu kiiraay boobu ñu def ci njaboot googu. maître Moussa saar maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax vraiment tey jàng nañ lu bare bare bare ci wàllu yoon ci wàllu dossier la mais ak Massata Diack euh, euh, di sant di gërëm bu baax a baax sa ñëwoon tey ji biir émission face à Papalé di leen dig daje àllarba ci beneen euh, émission ak beneen gan ñu waxtaanee ko fii seen chaîne leader la Sen TV incha allah jërë ngeen jëf.